waaw jërëjëf tey mooy le diplôme de Kersi Thiam. le diplôme de Kersi Thiam ndeysaan. indi leen ko diplôme bi. ma ne. Sidaat. waaw. yàlla moo def nga demee ko suma papa ngi nii taxaw. papa. waaye. tey lii dina jaaxal Sénégal yëpp xam nga lu tax. gis nga reconnaissance. dafa baax ci nit li dina jaaxal Sénégal yëpp kii moom a njëkk wane toute une journée jël temps jël essence am def ci xaalisam wane man à la dévestie bi muy vingt-quatre ak. waaw ah, loolu la mel nii ne mi ko tàmbali. alors tey. Ah. bu ma demee ba fu ma neexee jiite la. wala man lay neex sax ma dem fee. yaay yaa ma wane. donc li ma waral tey Wally famille ak Wally Ballago Seck ak staff Wally Ballago Seck ak yi bokki Wally Ballago Seck ñu décerné ko diplôme d'honneur boo xamante ni Kebs Thiam moom moo ko moom. bravo Kebs. merci. ma ne. donnez à la diplôme. À la diplôme, s'il vous plaît. Ah, kon nag euh, laata déglu bi yegg si waa nii dañuy remercier quand même euh, ñi nga xamante ni ñoo ngi jàpp ci bis bi. mooy Omar Yaya Sow nga xamante ni directeur ARASA mooy président Dogo merci am na itam euh, Safa. yàgg dimbali itam wàllu famille depuis 2009 si laaj loolu yàgg na et ñu teg ci itam ah ki nga xam. yu bàyyi suñu liggéey si laaj jàpp suñu yaay def ci jàmm. certificat de reconnaissance madame Kebs Thiam sur vos applaudissements. Oh! merci. jërëjëf oui oui merci félicitations. jërëjëf jërëjëf Balakour. waaw góor day yokk góor a fàtte woo démb yal na la yàlla defal jàmm yal na la yokk ba nga yëg ko ci dara ja yaa Rasulullaay ku kontaan ci waaru marabu rek sal ko ci kaw xam nga fàtte dafa gaaw ku fàtte ñu fàtte ne la kii mooy góor kii mooy góor kii mooy nit ku baax yal na la yàlla defal jàmm marabu jërëjëf may leen jëloon bu baax sama xol seet na trop jërëjëf jërëjëf ah kon tu le mérites. bii nag tu le mérites. bii nag c'est décerné à mon frère monsieur Ahmed Ndao. Ahmed Ndao qui fut le premier président Wally Family. oh Ahmed Ndao. monsieur Ahmed Ndao. ah tey de loxo Ahmed Ndao s'il vous plaît. jërëjëf si jërëjëf. kontaan nañu le président de Wally Family rek moom dina la woo jërëjëf jërëjëf. kon si ak yaay joxe diplôme sama liggéey kii mooy Ahmed Ndao premier président. fan si Wally Family waaw. merci lii dafa neex. waaw ku def lu rëy nag am lu rëy rek. merci. félicitations beneen bi topp nag mooy madame Aminata Ndiaye. madame Aminata Ndiaye. Elew Amina Ndiaye. ana madame Aminata Ndiaye s'il vous plaît. Elew Amina Ndiaye. elle est avec moi depuis 2009 ba léegi. depuis 2009. waaw lu waa di réaliser. waaw. mu ngi ci loxoom mu téye. album sax balaa moo génn moo koy jëkk am kon tàcc leen ko xale bu bravo jërëjëf ana Amina.